te Fouta le Fouta. qui peut plus peut le bu dee jamono yooyu la ñu Podor joxoon 17 pour cent ci diggante bi mu ne xew na gëm naa ni ren dimanche bii bu soobee yàlla lu mu tuuti tuuti dinañu am 70 pour cent xanaa à Podor man loolu gëm naa ko parce nag.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 dinaa dugg Fouta ñëw def ci campagne parce que Fouta ci Sénégal la bokk kenn gënul nekk Sénégalais Fouta te Fouta le Fouta et pour le changement les Foutanké sont pour le changement ñi nekk fii ak ñi nekk diaspora parce que Fouta sonn na comme Sénégal ni mu sonnee kon ñu leen di gërëm di leen sant leen wax ni suñu amoon jot dinañ dugg ci koñ yëpp mais ñu ngi xaar fi mu ne njum te dañu war a delluwaat wax naa fi ñu war a jaar yëpp war a terminer